nga xam ne lañu jëk ñuy njëkk a rafetlu euh, démarche bi ministre bi jël parce que dañ né Covid bi mënon na né kat secteur bi mo dépendre ci sama ministère mais mom xol gis-gisu ministère dafa xol gis chaîne de valeur tourisme ce qui fait que am avons ñoo que buñ dé ci découpage politique gouvernementale dépend du ci ministère du tourisme ñu ngi dépendre par exemple ministère de l'enseignement technique la promotion professionnelle l'artisanat etc. Intégrer intégré nañ leen ci dispositif donc c'est mu premier élément euh, positif beneen bi mooy ndax mbir mi transparent na jàpp nañ ne ci niñ en tout cas même euh, réclamation yi jot c'est pas des réclamations liées à la transparence de la procédure parce que procédure boo xam ne dañ la ne foo mënti nekk mën nga plateforme digitale nga inscrire Bo inscrire ñu ne le critères yi lii le boo ko remplir nga toog juróomi fan ci lu mel ni critères ñu ne la ce financement ni l'olou nek na dispositif bu transparent est-ce que efficace efficacité bi bokoy xol par rapport aux objectifs yi nga am ak moyens yi nga mobiliser ñu est-ce que efficace parce que l'outil, ci ëpp moy préserver emploi parce que nous sax reprendre l'activité, parce que mënagul net. mais préserver emploi est-ce que emploi ça a été préservé dans le secteur am nañ ci parce que dem nañ dans les régions discuter nañ ak ay borom hôtel discuter avec les guides discuter avec ak tenanciers de restaurants, etc. et cetera ñoom que xamal est ne d'abord le taux d'intérêt parce que c'est important c'est 3,5 Nous avons ñu ne la di nga faits. ñaari at nous fay rembourser ci ñetti acteurs c'est la première fois ñu am loolu ci dispositif d'accompagnement donc l'efficacité, bi gis parce que permet na acteurs nous, euh, téye seen euh, ñu téye seen seen personnel maintenant est-ce que am impact ci activité yi mais impact nag moom da nga koy natt ci lu gën sur une plus longue durée ci durée bu gën a yàgg mënuñu waxagum impact pour l'instant ci efficacité la ñuy nekk mais li nga xam ne jàpp nañ ko mooy ci suñu waxtaan aussi bi ñu ñëw ndax général bi dafa tijji benn benn centre d'appel bo xam ne ku nekk boo amee réclamation mun nga ko ci def am ay réclamation yu jot sur le terrain amna ay réclamations yu ñu jot à travers nos dispositifs, euh, 800 et quelques bi nga xamné général moko mettre en place mais préoccupation bi ñëwee aussi amuñu lenn luñ ci lax waxtan nañ ci ak ministre momi tamit jox nañu ay tontu mu jëm ci euh, euh, agence de voyage yi nga xamné dañ japp né ñom dañ leen a ci mbir mi euh, xamal nañ ñu ministère bi xamal nañu ak ay collaborateurs que c'est parce que simplement dispositif bi nga xamné mo régir crédit hôtelier ak comité de gestion bi ci nekk dañ ko tëraloon bien avant Covid kon même structure moy continuer di def ligueyam mécanisme yi lañu alléger donc xam nga aussi lolu xel mën na c'est pas parce que Covid amna rek li fi nekkoon yëpp nga ne faxas naa ko damay dugal ay acteurs yu bess lolu mën na indi jafé jafé parce que boba yow sax do maîtriser acteurs yi mën nañu créer wu uniquement pour dugg ci structure donc mais li amone solo moo doon garantir li ñuy wax accessibilité de tous les acteurs ci dispositif bi ak syndicat boo mën a bokk ak association boo mën a bokk te loolu gis nañ ne am na fi parce que amul benn euh, structure boo xam ne ay mbooloom bokkuñu ci ci ci mbir yi alors maintenant nag am na ay préoccupations particulières loo xam ne c'est des préoccupations légitimes yoo xam ne sax du ministre bi rek mais ñun comité de suivi bokk na ci li ñuy jox comme recommandation parce que c'est une mission aussi mooy bu ñu saytoo mën nañ def recommandation au chef de l'État bokk na ci euh, renouvellement dispositif bi bon déjà feeñ na ci plan de relance bi ñu ministre bi wan ci plan de relance bi dina am renforcement crédit hôtelier et crédit transport aérien loolu c'est des éléments importants ndax bi mbir mi amee crédit yi ñu jox hôtelier yi wala transport aérien dañu leen jox ay crédit sur trois mois euh, surtout hôteliers sur place ce la ñuy wax mais nous, bo len joxé trois mois trois mois six mois d'août bi ci temps naturel sax dafa une période de basse saison waxatuma malade avec la Covid donc dañuy xol nak lañ ko wara mëna allonger ci un nouveau dispositif de trois mois mais lolu décision la bo xamné ne faw ñun ñu def ko recommandation aussi ak aussi, valable na aussi ci transport aérien parce que reprendre reprise du transport aérien nek na lo xam ne du gaaw euh, parce que ça ne dépend pas que de nous dafa dépendre aussi ci yenen rew yi ndax tijji nañ sen frontière conditions d'accès yi etc donc on va encore ci ay période yo xam dina xaw metti pour le secteur de transport aérien ñu war ci gëna a xel mais dal ci tënk li ñu mëna japp moy euh, ministre bi bi ñu ñëwee pour waxtaan ak mom li ñu rafetlu moy solo bi mu jox suñu ndaje fi ak ni mu woyé kurel yi nga xamné yëngatu nañ ci mbir ku ci yor y compris acteurs parce que gis nañ fi euh, des agences de voyage gis nañ fi des restaurateurs gis nañ fi également séance tenante de cas des restaurateurs de Gorée a été réglé loolu aussi il faut s'en réjouir euh, artisans restaurateurs yi nekk Gorée c'est séance tenante que le ministre a demandé à ses collaborateurs d'élargir et de leur offrir cette possibilité donc loolu aussi euh, rafetlu nañ ko bu baax secteur bi impact bi très na euh, ñun ñëpp ñoo parce que secteur la boo xam impactam dans la constitution de la croissance économique et du PIB du Sénégal le secteur touristique doit ci un rôle majeur pour muy jouer donc d'ici à trois mois d'ici à six mois ça va être encore difficile euh, quand bien même les activités vont reprendre le temps, comme nous, Air Sénégal mais il faut que dispositif d'accompagnement bi maintenir Wow, tay buñu jappé ci ci copar yi nga xamné jaglél nañ ko secteur bi euh, tourisme transport aérien euh si juróom-ñaari euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards euh, ñu ngi ci 85 à 87 manam quatre bo jël rek juróom-ñetti fukk yi ba ak juróom wala juróom-ñaar ñu ngi ci exécution maintenant nak dafa varier parce que secteur bi koppar yi dañ ko tas qui plusieurs composantes euh, moi am composante crédit hôtelier am composante crédit transport aérien am composante soutien aux structures euh, de l'État il y a une composantes yu nekk la donc en fonction composantes si ak ni accéder ci ci ci koppar yi euh, na différence de tout, mais li am solo c'est que ministre bi ci ñun acteurs nous sommes ñu ko wax sur le terrain bi ñuy door dañu teg ay critères ak ay procédures ak ay délais mais moom ci boppam moo ne ay service am mënul xaar kon nañu gàttal procédures yi gàttal délais yi alléger procédures yi ak critères yi ba nga xam ne ku ci nekk war ko yeyoo ko rek war nga ko mën a